ce n'est pas que le sport. On a aussi organisé de la culture. On a visité le patrimoine culturel du Sine Salomon. Hier, on a une belle veillée culturelle à féliciter et vous remercier la presse sportive. La presse sportive, comme j'ai toujours eu à le dire, est un levier extrêmement important pour le développement des sports. Et vous êtes des hommes de valeur des hommes qui se sont engagés pour le développement du Sénégal. Qui parle développement du Sénégal donne la place qu'il faut au sport. D'ailleurs, c'est pourquoi le 20, nous allons procéder, le président Macky Sall va procéder à la pose la première pierre du stade olympique. On parle du stade olympique parce qu'autour, il y aura une piste d'athlétisme avec une turbine contenant 5000 places. Il y aura aussi des terrains d'entraînement et ce sera un stade qui sera autonome

mobiliser, que tout le monde vienne, en tout cas accompagner ce jour historique. Et le président Macky Sall posera la première pierre. Et en juillet 2021, nous aurons notre stade, s'il plaît au bon Dieu. waaw li may wax mooy am mbégte mbégte bi ñu am mooy ñëw fii organiser fi liñ fi organiser muy final coupe du maire boo xamante ne inspiration bi ci président Macky Sall lañ ko jëlee pour Fatick lépp lu ñu xam ne baax na ci nit ñi war nañ ko fi andi surtout jeunes yi ñu feete leen moo tax maa ngi gërëm le gouverneur de région doxloo naa ko tey ba mu sonn parce que il fallait que ñu dox parce que oto yi xejuñoo ci stade bi le préfet du département waxuma ko ci nasaraan waaye tey dañ leen di gërëm di leen sant suñu seen taxawaay tey feet bu am solo la woon xale yi football nañ benn équipe gañewul même bu Sangomar yóbboo trophée bi tey ki gagné mooy Fatick muy jeunesse yi tey gis ngeen mag ñeeg ndaw ñëpp a ñëw ci stade bi loolu nag dafa nekk loo xamante lu jaadu la parce que ñun lu ñu am fi ñu dëkk moo ñu ko gënal gannaaw Sénégal gi nga xamante ñun ñëpp a ko bokk lépp nag dañ ko jëlee ci ki nga xamante mooy njiiti réew mi di gërëm nag suñu mbokk yi fi ñëw yëpp maam booy dama koy gërëm bu baax a baax parce que nit mën naa ñëw ci final ànd rek ak ñetti nit mais tey lim mu fi ànd ci ay nit wane na considération bi mu am pour Fatick mais considération bi mu am pour man ñu bëri ñëw nañ fi ministre yu bëri maa ngi leen di sant le ministre de la santé le ministre des infrastructures le ministre des mines le directeur de l'hôpital principal ancien ministre de l'environnement mais la liste est longue le maire de Guédiawaye le président de l'AMS qui est qui est d'ici en tout cas le maire Alioune Sall le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye tout le monde est venu accompagner le conseil municipal pour que ñu fête suñu jeunes yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ci seen taxawaay tey li ñu def dafa am solo parce que 48 heures la démb footballu ñu rek dañu woo waa Kaolack woo Fatick xam ngeen ne Fatick ak Kaolack c'est la région du Sine ñu fanaanee wane li fi amoon doom doomu yaani koddu yi ci nga xamante ñooro lañ dëkk ñëpp ñëw fii ñu feete ba ci subateel bi loolu am solo la ci dundu doomu kon démb ak tey Fatick mooy capitalu culture mooy capitalu sport loolu nag dañ koy sant yàlla te di gën a góorgóorlu bëgg nañ at bu ne muy gën a ëpp dayoo parce que lépp lu ñu fi def rek jeunesse su Fatick mérité noonu waaw euh, li may wax mooy dama am beneen pression positive parce que président Macky Sall day dem poser le 20 février ca Diamniadio li nga xamante ne moom mooy stade olympique stade olympique nekk lu historique ci suñu dëkk yi parce que 155 milliards d' investissement du caaxaan ñu war ko commencé le 20 war ko réceptionné bu soobee yàlla en juillet 2021 loolu lu ama am solo la muy terrain boo xamante ne piste d' athlétisme bi dañ koy génnee def ko ci wetam ak 5000 places ay terrain d' entraînement mu nekk stade boo xamante ne solaire moo fay nekk 2 mégawatts centrale boo xamante ne day autonome ndox mi ay forage lañ fa def lépp autonome loolu nag président bu am ambition rek moo ko mun a def ci réewam bu ñu ko investir dina permettre ñu def Jeux olympiques yu am solo waaye nam ko waxee woon le 31 décembre bu ñu paree xool nu ñuy yootoo li ñëpp bëgg muy la coupe d' afrique des nations loolu nag maa woo Sénégal yëpp parce que c' est un moment important boo xamante ne la jeunesse du Sénégal war nañu rendre un vibrant hommage à ce visionnaire qui le président Macky Sall bi nga xamante ne moo joxe ndigal pour tabax li nga xamante ne mooy stade olympique bi war a nekk ca Diamniadio